kii dama ne kii su doon sëriñ mooy tax kenn du ko ñaar kenn kii amul sëriñ bu baax nga ne kii. Hmm. sëriñ bu baax bi nga gis am dafay doon lu mu am jox na ko sëriñ ndax rek boo ko am doon waaye maa ko yàq. yaa ko yàqal. du def gis rek hmm. léegi sëriñ yooyu. dañoo munul wala yow yaa yaa jommil sëriñ si wala lu xew. déggoo ma ne sëriñ yi lu baax rek lañ koy defal yow déggoo lu ma wax. déedéet de. sëriñ yàq. yow yaa yàq. yow déggoo. dégg nga lu mu wax. yéen dégg ngeen wala déggoo leen. non dama bëgg muy wax moo tax man naan ko déggu ma. leer bamtuwaat nit ñi mën a dégg. parce que lu mu wax dafa am solo. moo tax ma koy bamtuwaat léegi yow bés ni ki tey dama lay tuubal. nga doon suma taalibe nga génn ci moom nga ñëw ànd ak man di ma liggéeyal yaa ngi dégg. Hmm. ko dinaa ko faj. Hmm. kan moo ko doon yàqal. ah waaw yow bu ma la jàppee na bu ma la téye <laughs> uh-huh. coow li jeexul. waaw ah? kii de neew fi xam nga ne jinne bi instant bi neew fi. <laughs> ñëw fi de léegi yow noo tudd sa tuur laa bugg a xam. ci géej gi nga ne. soxna si ku jëla tudd. Kujja ñaata at ba ko dugg ak léegi ñaata at la bi mu nekkee xale ba tey kii war na am 40 ans de wala wala ay 30 moom am na cinquante quatre kon yow daal depuis mu juddoo yaa ngi ko dugg daal. yow nag. yow ñaata am. Ah, mag nga yow am nga ay doom est que est-ce que yow amoo moom ay doom. ah bëgg ànd ak moom mu bañ. day dëgër parce que dafa jullite de waaw ah, loolu moo ko dimbali nag. kon jinne dina bëgg a nit nit ki bañ. waaw parce que dafa jullite. nit ñi moo tax may laaj du pour man. jinne kon dana bëgg a ànd nit nit ki bañ. waaw mais yenn saa yi nag dama koy sàcc gis nga yenn saa yi. waaw dama koy sàcc mais dafa jullite. boo ko sàccee bu may sëy ak moom rek balaa may sëy moom sax mu yeewu. Hmm. gis nga euh, moom alxuraan rek lay teg. alxuraan rek. léegi moom rek lay déglu. léegi alxuraan bi mbaa yow du lay déranger. moo tax du ko jot. alxuraan lu baax la de day leen déglu alxuraan mais delluwaat ci man dama ko mujj dama buy julli ah koy jaxase pour mu waaye eh, kii. nee na buy julli daf koy jaxase. xam ngeen ne mbokk yi lii dafa doy waar de ah. jinne jinne yi dañoo bëri pexe. Oh. léegi nag. Euh, yow daal yàqal nga ko digganteem ak ay doomam nii nii nii moo ngi sëy wala sëy. Oh, ki déggul nga wax yow. yow kii am na vingt ans. si yow yaa ko tere am borom kër. ku wane xoola amul nit ku baax ku ñëw bëgg ko ku ko gis sëriñ ñi koy faj sax dañ koy bëgg hmm. ku ko gis bëgg ko mais xoola. sëriñ ñi koy faj yi dañ koy bëgg. dañ ku gis bëgg ko. mais yow c'est la première fois nga ñëw fii tey sama kër. waaw yow. déggoo lu ma wax doom ji moo ko forcé doom ji. doom ji moo ko forcé forcé ne ko cenn moo lay faj damaa génn cenn moo lay faj cenn moo lay faj léegi nag mu ñëw. doom ji ma topp ko mu ne. doom ji mi ngi Maroc moom yéen ñaari doomam yi yéen ñu ngi Maroc ñi ñi si des ñu ngi Hollande xoolal maa leen jaxase. xoolal dañu am wërsëg ñooñu ah mais xool dama leen jaxase. da nga leen jaxase waaye léegi ma daal di lay tuubal pour génne la ci xale bu jigéen oh. ma tuubal la. hey. waaw waxal ashadu an kon mbokk yi gis ngeen maa ngi bëgg a tuubal jële bi en direct ñu ànd ak euh, suñu site bu mag boobu leeral ànd ak waa bi aussi macha allah euh, ñu bëgg a tuubal kii maa ngi doog a xëy si tey doog a dugg si ci kër gi nuyoo ñoom ñu daanu macha allah yéegaguma ci kaw sama néeg sax. léegi nag ma daal di tombé ci xam ngeen ni saa su ne day am ci kër gi macha allah jinne yi fu ñu gisee ñu daanu loolu yàlla moo ko def yàlla moo ñu jox xam-xam jox ñu pouvoir ba jinne bu ñu jàkkaarloo mu egg suuf defe naa ne waa leeral kere waxoon nañ leen boo di ngeen gis ñu doy waar yàlla def na fekkee tey kon macha allah kon macha allah léegi ma daal di lay tuubal hey ma daal di lay tuubal. waa sëñ bi bala ma ko tuubal ma laaj ko rek. ndax yow am nga beneen beneen soxna jinne wala wa amoo beneen jabaru jinne sëyam yàq na sëyam ñi tere na ko sëy calculer loolu ñaar fukki at sëyoo mu tëj la daf la ménopause xaw ma ñaari at nga woo secrétaire Thierno mu la xëy suba gis régal xam nga ne loolu macha allah kiraama gënu ko rëy. waaw tàcc leen loolu waaye tàcc leen loolu. soo ko def Thierno Moule léegi waxal ashhadu an laa ilaaha illallah. hey ma ne waxal ashadu an laa ilaha illa allah an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammada rasulullah abduhu wa rasuluhu bés ni gi tey tuub naa dugg naa ci diine lislaam man jinne bi man rab bi doon yàqal soxna sii bés na gi tey Thierno Moule Sow xalif général des jinne tuubal na ma tuubal na ma dugal na ma ci diine lislaam macha allah mbokk yi dégg ngeen loolu. waaw tàcc leen loolu waaye tàcc leen loolu waaye euh, man ñaari mbir ñaari nit laay jàppale benn bi jinne bi dama koy jàppale ndax jinne bi dafa loolu yàq di def lu bon tey euh, xam na këram mooy safara tey bu ma bu ma ko génnee ci nit ki dama koy tuubal dugal ko ci diine lislaam su ko defee moom jinne bi dama ko yóbbu aljanna parce que kenn ku la xamante ne ndeysaan boo doon yàq sa kër nekk safara Thierno Moule tuubal la rek loolu rek macha allah lu rëy kon damay jàppale jinne jàppale askan bi kon yéen a déggandoo loolu bi tuubal naa ko direct ak euh, leeral macha allah ak euh, TMTV macha allah ci kanamu ñii nga xamante ne tey macha allah fekkee nañ lii macha allah nag ma fas yéene bu tuddee euh, grand théâtre le 21 septembre Thierno Moule Sow sargal. waaw macha allah léegi nag Guinée euh, le le 21 dañ ma tuddee benn sargal grand théâtre léegi nag yow laa njëkk a jàpp ci Guinée yi macha allah léegi nag dama ko bëgg a tuddee le 21 septembre grand théâtre sargal Thierno Moule d'accord léegi dama lay jox tur bi su ko defee nga bamtu ko nit ñi dégg ko. kon jinne bi bés ni ki tey neel bés ni ki tey tudd naa le 21 septembre euh, sargal Thierno Moule Sow Grand Théâtre kon dégg ngeen loolu jinne bi tuddee naa ko sargal Thierno Moule Sow le 21 kon yow jour sargal bi da ngay ñëw macha allah. waaw tuddee nañ ko sargal Thierno Moule Sow le grand théâtre kon macha allah mbokk yi moo ngi noonu euh, li yëpp bu ma gisee ma def ko pour gën a wan nit ñi rek macha allah liggéey bi ñuy def qualité la macha allah euh, dafa leer dafa set ndax lépp lu ñuy def dañu koy def te yàlla tax moo ngi ni xamaguma ko waxtaanaguma ko ak moom ñëw naa jàpp ji neem tuubal naa ko la gis ngeen loolu kon macha allah li ñuy wane dëgg la lii lañuy defal nit di jàppale nit ñi suba suba nag gars yi toog jéem a yàq sa der jéem waaye kenn mënu ma yàq man Thierno Moule Sow. ndax yàq daa ah? ñàkk la la la waay tàccalee dina bi waay. nga ku ma yàq. lu tax nga wax loolu. waaw. waaw. <laughs> dégg loolu ngeen loolu kon lii dafa leer. kon nag euh, dama bëgg nga génn ci xale bu jigéen bi. bu ko defee nga bàyyi ko nga bàyyi régalam bi normal nga bàyyi ko ak doomam yi nga bañ a euh, lii nag dama ko def addiya suñu borom. addiya Muhammad sallallahu bu leen gis lii rek nag dañuy liggéey laa dama ko def addiya suñu borom laa ko def addiya Muhammad addiya ah, suñu borom dama ko def addiya yàlla ba pare def ci addiya Muhammad kon maanaam première jinne bu ma njëkk a jàpp fayeekoowuma ko dama ko def addiya suñu borom waaw dama ko def addiya maanaam dama def addiya suñu borom asaka liggéey bi macha allah kon première jinne bi ñu tuddee euh, euh, grand théâtre le 21 septembre Thierno Moule Sow grand sargal euh, Thierno Moule Sow grand théâtre def naa ko addiyee suñu borom addiyee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah moom def naa ko addiyee suñu borom waaw dégg nga jinne kon nag euh, dama bëgg xale bu jigéen bi soxna si nga bàyyi ko soo ko bàyyee mu mun a dellu mu sëy mu am jëkkër nga bàyyi mélangé ko ak ay doomam nga bàyyi yàqal ko xale bu jigéen bi dama bëgg nga bàyyi ko tout tranquillement nga ñëw ànd ak man liggéeyal ma doon suma taalibe d'accord yow lan nga mën lan mooy sa professionnel lan nga mën ci tey boo ànd ak man pour jàppale ma ci. mën nga yàq. yàq rek ngay def ak lan. moom dama ko doon sonal daal dama chaque jour damay dama koy sonal bopp bi day métti dama koy sonal lu mu am ma yàq ko alal bu mu denc ma yàq ko dama ko doon sonal doom yi ndeysaan man daal wax dëgg yàlla daal. dégg na waat daal. dégg ngeen loolu. kon mbokk yi loolu nee na daf ko doon yàqal. loolu yàqal mhm. yor nga yàq. waaw. mbokk yi lii nag lañ bëgg a waxtaane grand théâtre euh, sargal bi waxtaan kër yi yëngu-yëngu yi nekk ci kër yi jafe-jafe yi nekk ci kër yi lépp jinne yi ñooy dugg ci kër yi di yàq calculer soxna si ndeysaan vingt ans sëyul nekk jigéen ay doomam nekk bitim réew jinne bi di mélanger di jaxase te régalam def ko pose deux ans soxna si mënul gis régal mu woo suma secrétaire rek si ëllëg sa mu gis régal man xam ngeen mu leen ndaanaan la Thierno Moule ponkal la le roi médecine traditionnelle du monde king of the king maanaam wanati naa sama jikku wanati naa sama bopp macha allah nii defe naa ne lan ngay wax Fata. waaw sëñ bi lii leer na yaakaar naa ni eh, li naan tuuti léegi ñi nga xamante ne bii ñu ngi ci biti di yàq waaye yaakaar naa ni ku ñëw yam ci lii surtout waa leeral tey gën nañu am confirmation bu gën a leer parce que nekk na loo xam ne fekke nañ ko mu nekk lu doy waar ma bëgg nag ngeen tàcc sëñ bi bu baax a baax a baax képp am a baax a baax a baax a baax. génnal ci moom grand théâtre le 21 septembre sargal Thierno Moule Sow Djinna Moule Sow grand théâtre le 21 septembre sargal Thierno Moule Sow Djinna yaltu yaltu yaltu Djinna yaltu yaltu yaltu yaltu grand théâtre le 21 septembre sargal Thierno Moule Sow sargal Thierno Moule Sow sargal Thierno Moule Sow Djinna le roi médecine traditionnelle du monde Djinna yaltu invité naa ñëpp ñëpp ñëw ñëpp kuy bëgg a Thierno Moule Sow ne ñëpp ñëw le 21 septembre. laa ilaha illallah muhammadur rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam. laa ilaha illallah muhammadur rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam. yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu yaltu. ndeysaan tudd na yàlla. ki nga xamante ne jinne bi adduna bi yëpp musul tudd yàlla. fi la tuddoo yàlla ci kër Thierno Moule Sow. alhamdulilah. ak kan la fi àndal. man kese ma ànd. Ah. waaw. sama portable. waaw. a sama doom. ama portable la. ana saagam portable la. wala na am ku ñëw jël woo doom. joxe joxe joxe ci joxe ci. kàttan la loolu la yëg. sawee sawee. zeki am zeki. Thierno Moule Sow non stress ku ñëw fii sa stress dafay dañ. mosoo def lu la ñu. ñetti weer njaboot macha allah ndeysaan ndeysaan unité 19. ndeysaan ñetti weer. ndeysaan may faj sama sët. ndeysaan ñetti weer yàlla. ndeysaan ñu toog unité 19. ndeysaan mosul def. ndeysaan bu doon def lu bon maa koy njëkk a wax. ndeysaan ndeysaan ndax bokk na ci sama liggéey. ndeysaan mais mosul def lu bon. ndeysaan lii rek lay def. macha allah di dimbale doomi aada. ndeysaan ndeysaan di def te yàlla tax ci kenn mënu koo yàq yàllaa ko wàccee a mu dimbale ñu kon nañ dimbale suñu ki kenn mënu koo yàq ci kaw ci kanam jàmm rek ngay am billahi yàlla dina la may gudd may la wër sàmm la sàmm sa njaboot ceer ma xam ne li tax ma gën laa bëgg danga bëgg a sa yaay danga bëgg a sa yaay moo tax ma gën laa bëgg nit bu bëggee waajuram man damay sey ci yow bëgg doom nag moo tax ma sëy ci yow. ndax xam nga mun naa laaj. xam nga sa yaay maa ko mag. mais du ma waxal kenn lu dul dëkk. lu waay wax dangay wax rek lu la neex. waaye billaahi wallaahi wa tallaahi yàlla rek ngay liggéeyam. billaahi jërë ngeen jëf ngeen. tàcc leen loolu waay tàcc leen loolu waay kenn ñu xam ne loolu. yaa gëntoon may faj sa yaay wala. gis ngeen lii lu leer la waxal. Fatou faj na ma. waaw. faj na ma Fatou. lii leer na. Fatou kii yàlla na gudd fan. amiin waay. kii yàlla na gudd fan. amiin amiin amiin. Fatou suñu àdduna wa yàqu woon. ndeysaan gis ngeen doomam baa ngi jooy. ndeysaan Fatou. suñu àdduna moo yàqu woon. ndeysaan gis nga doomam bi mais alhamdulilah rabbil alamin. ngeen lii. alhamdulilah rabbil alamin. adee suñu borom adee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ki moo gëntoon dama lay faj. ndeysaan. Fatou. allo Fatou. maa ngi nii. maa la xalif général. micro micro maa ngi nii faj naa sa yaay du la ne woon da ngaa jiitu ma faj faj naa sa yaay macha allah moom. salaam na ngeen def. yéen a ngi ci jàmm. ndeysaan gis nga ana Mouhamed. xoola xoola rek ndeysaan. xam nga ne ndeysaan ndeysaan gis ngeen. Mouhamed ndeysaan gis ngeen. léegi nag avec sa ñi nga doon liggéeyal di leen jàppale di leen dundal ñu jóge fi di la bëgg a yàq. ñi ko def fii lañ doon liggéeyee. wala kenn la yàq. fii lañ doon liggéeyee kenn ki kenn ki barki démb may naa ko 500000 laa ko may. 500000 laa ko may. moom après moom mu ne def may yàq. cinq cent mille laa ko may ci kanamu boo léegi mu ne man daf ma yàq man <laughs> téeméeri junni laa ko mujjee may ci kanamu ñi ñëpp ma yëkkati cinq cent mille man ne ko am tey nag moom moo dagg vidéo yi dagg ko defar ko yónnee ko ñi ñi boppam lay loor waaye man mënu ma yàq dégg naa ku mu nekkal bu la bàyyee jëm la yàq ku mu nekkal bu la bàyyee yàq la waaye man mënoo ma yàq ndax yow ba ngay ñëw ci man xam naa ne yow dafa yaa nga mais ma accepté la nekk ak yow bàyyi la xel nag. munoo munoo ma yàq. <laughs> munoo ma yàq. moo dagg vidéo yi moo defar vidéo yi moo ko yónnee. moo ko tas. munoo ma yàq. barki Demba Ndiaye mil laa ko may téeméeri junni. léegi avec ça mu bàyyi fi bëgg a rey kër gi bëgg ma suuxal. dagg vidéo yi monté yónni ay nit. di ma pièce. waaye day kopp sa kaw ba dugg sa biir ba. kuru karanoo sa biir. waaw mu mel ni mu mel ni ba mu mel ni Baye Thierno tamit ci maire bi nga xam moom la ko bëggoon a moom la ko bëggoon a jaarale. wax loolu ñi ñi xam. jërëjëf. Thierno yàlla la defal moom mënu laa yàq. tey barki ci kanamu ñëpp. yàlla la defar bu laa mu am xew ma déplacé wu dem ba seen kër jëndal ko xar jënteel ko ba mu neex yëkkati xaalis xottil ko ay yére léegi nee na daf may jéem a yàq da ngay nax sa bopp yow ba ngay nekk man laa xam ne doo ku baax boobu laa la doon siibu di la bàyyi xel mënoo ma yàq sa pexe sa pexe weeru nga. Thierno Moule moo ko yàq. man xamaloo ma lu ñaaw. bu mu waxati. defe naa ne lii leer na kii moo gënt na faj naa doomam ma faj doomam direct. fayeeku ma un franc joxagu ma ko. yaayam. waaw un un franc fayeeku ko. dama ñëw dugg si salaamaaleykum ndekkeegu ma sax. kër gi jaxasoo jinne yu daal. leer na nañ na ceeb. bul tontooti kon nag macha allah jërëjëf jërëjëf. bul tontooti. yàllaa la booy tontu rek dañ leen di may bul tontooti. yàlla. bàyyi leen yàlla bàyyi 500000 laa ko may fii ci kanamu ñëpp. téeméeri junni. bul tontooti. tey la tey ko yàlla dogal maa ngi soog a jàkkaarloog yow maa ngi jóge ba Louga maa ngi jóge ba laa jóge Louga yegg si fii cinq heures du matin fekk fekk fii gardien yi ñu tëj ma foofu ba tey jii nii maa ngi lay soog a ñaari at maa ngi lay wër ceerno yal na la yàlla fay yal na yàlla may yal na la yàlla may gudd fan ak wér. xaw ma ko xamaan moo ko xaw ma fu mu dëkk xaw ma moom mooy kan. ñëw naa ci kër gi rek jinne yëpp daanu. ma faj ko def ko addee suñu borom ndax c'est la mooy première bu ma reprendre liggéey jinne bi ma fi jàpp mm-hmm. tuddee ko euh, le 21 septembre grand théâtre sargal Thierno Moule mm-hmm. defe naa ne lii lu leer lu leer la da ngay nekk ak mm-hmm. ak moom boo leen demee ba nekkatoo leen mu ne mu yàq la waaye du du ku ne la ñuy yàq Thierno Moule Sow Moule Sow the king of the king nga xamante ne buy buy nelaw di buy nelaw sax day calculer kon kooku kenn mënu ko yàq kenn mënu ko ko fexeel buy nelaw sax jinne yi dañ may garde bu may tëdd di nelaw sax jinne yi dañuy ñëw sécurité ma kon man mënu man mënuñu ma yàq waaw le grand théâtre dana neex de macha allah invité naa ñëpp waaw waaw kon ñu ngi jox rendez-vous grand théâtre la ma léegi-léegi nga demee xaw ma sans xaw ma nag fee xaw ma ah, ah yow la kan su ma jinnee attaqué attacking Apros, attacking attacking Apros, attacking Apros, Apros, Apros, Apros, attacking Apros, attacking Apros, avance, attacking, avance, attacking, avance, attrape, attrape, attrape, attrape, attrape, attrape, attrape, attrape, attrape, attrape, attrape, nga am père. 72 ans yow yow euh, yow ban melukaan nga yor yow jinne nga wala rab nga wala lan nga ban melukaan nga yor. yow jinne nga aha ban façon jinne nga. xam nga waaw ko waaw mais damay laajte pour nit ñi xam man man loolu du problème pour nit ñi nit ñi moo may laajte ban façon jinne nga. <coughs> ban façon jinne nga. jinne jàng lan ak lan nga ko yàqal dëgg-dëgg ci addunaam loo ko yàqal xale bu jigéen bii. bari na de. wax ma limal ma ci lan ak lan loolu dafa baax su ma benn xarit taalibe kilifa la ma Thierno boo jàppee jinne yi ndeysaan da nga leen di laaj la ñu yàqal nit ki. laaj leen di gis di waaw waaw. magam la. magam la. moom kan loolu kee. nga ne kii moo ngi jàpp kii ba pare def feebar ci kee. lu tax nga def loolu feebar. moom xam nga moom daa bëgg Macky. dafa bëgg Macky. waaw. waaw. moo tax def Macky bi day bopp bi di metti. waaw ak biir gi. ak biir bi. seen dine bu la jàppee du yem ci yow kese. dina dugg sa njaboot yàq sa njaboot sa yaay sa mag. waaw sa nijaay dañoo doy waar. moom la àndal. papa mu ndaw ana mu. kooku moom. Ah, papa mu ndaw. bu muy def troisième. waaw. loolu laa jaxase kayit. yow la wax ah. ba ngay def troisième jël leen ko. waaw waaw ba ngay def troisième ah demoon naa bu am mooy bu ñu woon tamit. waaw léegi ñun de kayit dañoo am problème boo defaat. bu ne beneen monde moo am du moom. kan def loolu yow. man maa ko def léegi ki la yàqaloon du moom mi nii tey sa problème kayit yi dégg nga ko nii lii mosuma ko yëg wala mosoo ko yëg. mosuma ko wax tey fan nga ko maa ngi doon door a xam. door kon mbokk yi gis ngeen jinne. Ah. waaw bu la duggee du yem ci yow kese. Ah. dana dugg say mag sa nijaay sa papa sa yaay. day yàq seen famille yëpp kon jinne dafa doy loolu moo waral tout le may rayante di dimbali askan bi di jàpp jinne di leen tuubal. di leen dugal ci yoonu siraatal mustaqim ah, di leen liggéeyloo ñu bàyyi nit ñi nit mën a am jàmm yow accident bëri fi am nag bokk naa ci de. nga ci démb ndeysaan am na suñu benn euh, euh, Cheikh Amar ndeysaan dañu dégg dafa def accident accident yi ci dëkk bi lan nga ci xam. am na benn accident bu amoon caajaay. waaw bokk ci. accident bu amoon caajaay bokk nga ci noo ci bokkee. kii bi daal diis bi laa gis mu ñëw. waaw. Eh, nga yëngal ko mu daan. dégg ngeen nee na am na cinq mois sama yoon nekku ci loolu xam nga ne jinne yi dañoo doy waar léegi nag ku mel ni Thierno Moule bu fi nekkee di jàpp ñii di leen tuubal ah accident yi di wàññeeku gis ngeen démb day sànni kilifa boobu dégg naa dafa def soog di ko ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla dimbali jógee ko ci xat-xat boobu ndax yi problème yi la rek jinne yi rek ak ñu bon ñi rek di la xeex di la boole ak ay jinne ñu lay fayal pour rey la yii la rek jinne yi kàccoor yi wala kaana yi nga xamuñu yàlla xamuñu yonente bi xamuñu nit ndeysaan yi yooyu dangaa defoon accident oto yàlla moo ma dëmale sax ba yàlla dëmale ba ma sama kanam bi yàqu ndeysaan da lay bi nii ay jinne ñoo ko def xoolal kii rek ndeysaan nokk naa gan bi liggéey ndeysaan naa fa dagan waa lu ma liggéey xel bi lu mu mën a xam dara parce que accident bi. yëngal na bopp bi. mais yàlla dimbali na la. man maa ngi dëkk euh, Médine Saba. Médine Saba lay saa dama ñëw di ñëw ko gardien yàlla dafa am ma ñëw si gardien bi. waaw waaw. damaa dëgër bopp de. dañu may jinne bi wax waaw nga ne yow da ngaa dëgër bopp waaye nag egg si nga de ñu xam nga kër gi. nee na yow yaay faj nit ñi. waaw waaw. dégg naa ñu koy wax. dégg naa ñu koy wax waaw léegi nag. gis nga papaam bi. waaw. Ah. bi mu defee troisième. Ah. na de. waaw ah. man maa jaxase kayit bi ñu naan beneen moodu moo am du moom. après nag bu muy def bac ak ay boobu def na bac deux fois première fois la waroon am deux fix maa jaxase kayit. mais yow wala kaala yow nan ngay jaxase ay bagul jàmbur ay nangam nangam. moom xale bu ma topp si si boppam moo dëgër bopp. moo tax ngay dugg ci mbokk man damay bëgg a yàq mu téye ma. moo tax ma wootee damay yàq rek nga ne accident bi amoon fee daal yow bokk nga ci. nee nañ cinq morts mais yow sa yoon nekku ci. yow <laughs> ak ñaata jinne la wala yow kese la wala dafa am ñoo àndaloon. nga ne. mille dina nga àndal ñooñu xanaa yaay seen chef wala. <laughs> loolu doy na waar mille dina nga àndaloon yaay seen chef moo tax nga def nga xam moo di accident ah. waaw léegi nag yow ñoo ngi ci kër xalifa ak si léegi ndax jinne yooyu léegi ñoom tam dañ lay wax ñu bàyyi loolu. mu ne. nee nañ mu nee na moom ku bàyyee ñooñu dinañ bàyyi kon bu ngeen bàyyi accident yi dina wàññeeku bu baax ci Sénégal. accident yéen yéen a koy créé ci Sénégal parce que gis nañ fan yi accident yi day bari dee yi day am accident yi doy waar accident yi yéen yéen koy créé wala. xam nga dem yi dañoo da ngeen jegante ak dëmm yi dañoo collaborer ak dëmm yi. xanaa dëmm yi dañ leen di chargé ay mission wala. dëmm ñoo ñu chargé dëmm yi ayoo xam nga dëmm moo gën a nekk wala kaana lu yàlla bind. maanaam defe nag dëgg boo ko déggee mooy dëmm defe naa dëgg nag boo ko déggee mooy dëmm. mais mais deux mille deux mille de ah. léegi nag yéen bu bu accident amee nit ki dee ban njëriñ la nga amal yow bi. man xale bu jigéen bi su boppam laa bëgg a rey. jigéen bii nga bëgg a rey. waaw mais moom daa am bopp. léegi yow lu tax nga bëgg a rey xale bi yow wala kaana nga de. parce que moom dama koo topp gis nga rakam bu topp si moom moom laa wax ko mu jox ma ko sacrifice moom neen daa bañ. rakam léegi bu la joxee rakam sacrifice. ma defal kan kii pouvoir. déedéet man maa nekk pouvoir bi. waaw ah, mooy dégg ngeen boo gisee jinne yi rey pour pouvoir la maanaam tey bu ñu rey exemple li ma la mën a waxee euh, bu ñu mënee naaw fii ba fii ba fii bu ñu reyee kenn dinañ mën a dem ba fii ba France noonu la benn dëmm bu ñu lekkee nit seen pouvoir day yokk seen doole yi. yaa ngi dégg maanaam nit bu ñu rey rek day yokk ci ñoom loolu moo waral ñuy rey nit ñi lekk nit ñi xam nga sa pouvoir yokk rek ngay rey doomu aadama yi loolu dafa doy waar loolu baaxul. yàlla nañu yàlla musal ci ay dëmm ci ay jinne amiin amiin léegi nag tey bés ni ki tey dama bëggoon nga génn ci xale bu jigéen bi xale bu jigéen bi waaw boo man ma génn si moom de waaye waaw xale bu jigéen bi si boppam moo dëgër bopp moo dëgër bopp waaw bopp bi moom day gis lu ñaawagul moom da gis moom day gis lu ñaawagul yaa koy wan wala non moom xam nga lan moom tamit daa am ay rab moom dafa am ay rab waaw mais léegi yow bés ni ki tey dama lay génne ci xale bu jigéen da ngay tuub suma taalibe su ma liggéeyal nga bàyyi ko sinon tey dinaa la def lu métti dinaa la teg lu métti. man yéen naa di teg lu métti a suñu gis nga faj si àdduna. lu mu faju ci àdduna. waaw tabaski bi daaw laa ko feeñal yàgg naa di ko topp moom mais foofu laa ko feeñal tabaski bi daaw. tabaski bu daaw. waaw ñëw na rek teg saakam leen day mhm. foofu léegi nag fi nga ak fii mooy kër Thierno Moule Sow la xalif général fii jinne bu ne ñëw na. gis nga xam nga foofu bu ñu demee foofu bu ñu leen joxee garab bi man damay toj garab bi. léegi nag fii amul jox garab de fii dañ lay génnee forcé du comme seen yeneen sëriñ yi ñu jox ko garab nga dem ñu yàq déedéet fii dama lay génnee d'abord ba pare bu dee dama koy jox dara ma jox mais moom nga faj ko xaalis la. du moom kii dama yàlla. mooy pour ma faj ko xaalis. nga bëgg a wax ne yorul xaalis. gis nga papa. te bascule bi daal. cinquante cinquante. a laaj wala. bu fekkee amul la ko laaj. waaw leeral bu amee question kay. waaw. léegi nag. soxna si yow. da ngay non du soxna si jinne bi ngay wax. ah jinne bi père mooy wax. waaw ne ko soxna si ba xam dina la faale. waxal ak moom ba. waaw Pierre. nga ne nga ne. soxna. waaw ma ko waxati soxna bi. waaw waaw Pierre yow lan moo tax nga bàyyi ñëpp ñëw taamu ci xale bu jigéen bi nga xam ne dafa amoon avenir ak wërsëg. gis nga xale bu jigéen bi muy jàng ak a aayoon waaye ma bu jàngee leçon ba pare man damay jóg si bopp jaxase ko mu gaaw mer xol bi di tàng ma def mënuma ko wax fii léegi lan nga fas yéene nii si àddinaam danga ko fas yéene yàq ba faw wala ko ba faw mu jural lan après soit mu jox ma rakam bi mu def ko sax. tontu ko tontu ba nga. yàlla. ma ne damay yàq àddina ba faw soit mu jël rakam bu góor bi jox ma ko ma def ko sax. te moom nee na daa bañ xalaatu ko ma jël ko sax moo gën ma jël ko. ah li jël ko moom moo gën moo gën nga jël ko. waaw te moom daa mun xeex. léegi yéen si yi kay moo ngi noonu. léegi yow ah. boo sacrifié euh, ki nga bëgg sacrifié après yow loolu lan la la jural. lan nga ci am lu bari. comme lan. parce nga ne. naa am pouvoir. na xam nga nag macha waa leeral. première man. léegi am na benn question ma bëgg a laaj xam nga nee nga accident yi bokkoon nga si ñi ko def bu caajaay. waaw yi mu ngi bari à chaque fois lan ngeen soxla pour accident yi wàññeeku bu baax exactement. soxla dara. yàq rek daal deret rek. ñun daal yàq nañ gis deret rek ñuy tontu ko foofu. waaw man waaw man yow yow yow moom xale bi jël. yow nga ne bu la xamoon. nga ne lu tax loolu lu tax nga ne bu la xamoon yow yaay kan. parce que man dama am fit ragaluma dara. waaw. moom mooy su la. mais kii jàmm nga koy am kii jàmm rek nga koy may. man daal kenn laa mën a ragal fii mooy man. tàccu leen lool tàccu leen lool waaw. sàmm de sàmm. képp ku ànd ak man ci néeg bi la mën a dara bi la def dara. parce que ñun ñëpp ci man la ñuy liggéey mais chaque jour ñu jàppante ak jinne yi chaque jour jàppante ak jinne yi waaye dara ndax ñoo ngi ànd ak man léegi nag man lu ma bëggoon tey xale bu jigéen bi dama bëgg mu neex la yow jinne bi mu naqari la far force fala force da koy bàyyi loolu mu neex la mu naqare léegi léegi mégatement. gis nga xale bu jigéen bi. su ma yoon nekkul ci loolu su ma lañ nekkul ci yow. laa wax loolu su ma yoon nekkul ci mais yow yow si sa bopp tey da koy bàyyi. mu neex la nga ne. dem yi dem ya. daa dem waaw loolu du problème bi. mais yow yow jinne bi yow mi ñu njëkk a jàpp yow da koy bàyyi. balaa ñuy wax waxu kenn yow mi ñuy njëkk a téye nag yow yaay chef bi yow bu ñu la day yomb ci ñun n'est-ce pas mm. ah. ah? am lu ma waxoon maamam lan la waxoon maamam boobu bi lu mu la waxoon maamam bu góor waaw kooku daa amoon bopp après daf may gis chaque bi gis mu juddoo yaayam am na cinq ans amul amaatul mhm. am na cinq ans amaatul doom. lu waral loolu. yow yaa ko defal. gis ngeen loolu. jinne kon xam ngeen ne li ñu yàq dafa bari ci ànduna bi. man nag lii laay xeex. lii laay xeex la nit ñi. lii laa nekk taxaw guddi ak bëccëg di xeex di dimbali askan bi lii mooy sama mission ñii jaaxle ma leen di jàppale guddi ak bëccëg matin midi soir lii mooy sama objectif lii daal mooy sama mission sër waaw waaw mais man ma ne yow seen kër moom kan ak kan nga fa yaatal ñu fa yaatal bëri na wala. sama papa gis nga magu kii ma àndal nii. Hmm. waxuma sama papa de beneen magam bu góor bi. Hmm. ñëw na tabaski rek. Hmm. am na lu ma yàq foofu nag ñib si waat dafa yàq. lan nga yàq foofu. yeeram xam na ñu saj ko. ci dem yi noonu la demee noonu la demee yéen a ànd ak moom man maay bàyyi yow yaay bàyyi waaw léegi laaj leen message affaire bi waaw yéeral yu bëri nag essay gis nga papa moom xale bu jigéen bi am na bakkanam am na lu ci comme ndox lu ciy tuuru nii loolu dañ ñoo koy def jëmm yi la waa xale bu jigéen bi chaque fois moom da koy sobe man nag loolu laa bañ loolu laa bëggul mu def ko. mais yow kii ne bu soxor la yow kii buy sobe ay nit di dimbali nit yow lan moo si sa yoon lan ngay lijjanti loolu yow. naa ko leen di yàqal yow xam nga ne baaxoo guddi xam nga baaxoo bëccëg. xam nga ne yow fii ngay des ak man tey fii ci kër gi fii ngay des xale bu jigéen bi jibi du xam nga loolu. xale bu jigéen fii fii ngay des de mu neex la mu naqari fii ngay des du xam nga lool munoo ko bi toloo tegee talaa tegee allah kanta allah kanta uti to uti hakkude jindi jini ɗiɗo hawke ɗiɗi saya tolaya saya wonande allah saginande allah hulu allah sabata alfayu jey alfayu matan kuntin sotinna awdi toloyanna nabi yanna nabi dure dure ten sotinna honcinayi hon hon honnen ko junayi hon tellen ayrohom ayrohom gelli jel def ko ci baɗɗi ñaari loxo yi ci baat bi laa ko ne déedéet du noonu ñaari loxo yi ci baat bi ñaari loxo yi ci baat bi ñaari loxo yi ci baat bi génne ñaari loxo yi ñaari loxo yi xoj xoj ñaari loxo yi ci baat bi ci baat bi ci baat bi génne jaxase jaxase mélangé nangiem haɓɓen nangiem wonti haɓɓen nangiem mesa ana mesa ana mesa mesa sonn nga da nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi da nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi. man lu ma dëgëree bopp yëpp yaa ma gën a dëgër bopp. waaw <laughs> tàcc na la zeki la zeki jaay na mu lay sow. lenn lu mu dëgër dëgër bopp maa gën a dëgër maa la gën a dëgër bopp la yow. indi booy dëgër dëgëru bopp fi nga may fekk bu ma sumee ko woon sax nga xam ne dëgg la <laughs> da nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi. xam nga nan lay def. waaw magam bee. waaw dañ koy faj. waaw après moom. waaw am na biir bu métti bu ma def si moom. waaw moom biir boobu. waaw bu dañul. waaw du mos a am doom. du mos a am doom dégg ngeen lu mu wax am na biir bu métti bi nga def si moom. waaw su dañul du mos a am doom. fan foofu. am na loo dugal foofu. léegi nag loolu dama bëgg après nga génne ko. dama bëgg nga génne ko di nga ko bàyyi wala doo ko bàyyi. déedéet amul xoolaat. léegi man damaa sonn. Mouhamadul Moustapha Jinna. Mouhamadul Moustapha. Mouhamadul Moustapha. Mouhamadul Moustapha Jinna. attaqué Mouhamadul Moustapha. Mouhamadul Moustapha. jaxase Mouhamadul Moustapha. Mouhamadul Moustapha. Mouhamadul Moustapha Jinna. xool Mouhamadul Moustapha. Mouhamadul Moustapha Jinna. Mouhamadul Moustapha. Mouhamadul Moustapha.